xamul tax mooy li ma wax léegi ci béykat secteur privé bi ñan ñoo demoon est-ce que amoon na organisation paysanne yi non ñan ñoo demoon ay industriel ñoo xamante secteur tertiaire la ñu ne ak secondaire mais nekkuñu secteur primaire ña fa ne ñoo ña waroon a taxawal secteur primaire bariwuñu mm-hmm. sëriñ buub laa ci gis te sëriñ buub mënuñu jàpp ni primaire la secteur Euh, tertiaire la nekk ak secondaire rawatina ci ay service ay jaayum oto ay yu mel noonu donte am na ay euh, lu mu mën a euh, yëngu ci wàllu jënd ak jaay mais ñi nga xam ni ñoom ñoo waroon a doon ñi mën a wax ndax dinañu wàññi dund bi wala duñu wàññi dund bi mooy secteur primaire bi baykat bi bi bay ceeb bu ñëwee ne la mën nañoo wàññi dund bi ci kaw ma indi leen production ceebu waalo ceebu mbay mi loo xamee ni doo leen soxla bu doon da ngeen di importer dix tonnes doo leen soxla importer dix tonnes cinq tonnes ngeen di importer bu boobaa ma dugal ko ci marché bi ceeb bi ñu wàññi ko baykatu soble bi ne leen tey leen importation soble mën naa leen defal autosuffisance ci wàlluk soble diirub ñetti weer wala ñeenti weer ca la ñuy soxla boobule béykat dina wàññi njëgu soble parce que soble ba mu lay jaay ñu ñu koy bayee fii mooy gën a moins cher ba ñuy importer ak taxes yi ci ak yoon bi muy jaar ak yu mel noonu nga ñëw ci maanaam fànn bu ne kiy jaay diwlin ñu ne la mën nañoo wàññi diwlin ñu ne la béykatu gerte gi mën na laa proposer loo xamee ni Sonacos ak usine yi defar diwlin war ko segg ci biir réewum Sénégal dinañu proposer teg sur le marché diwlin boo xamee ni diwlin bu gën a sell lay doon. du yàgg ci ci ci ci ci yoon bi di jóge ay yeneen réew di ñëw ba pare ñu proposer la loo xamee ni prix ba nga koy jëndee fii ci réewum Sénégal de compétitif par rapport ak li ñuy importe ci wàllu diwlin nga ñëw jàppale ñii di def diwlin fii ñu naan la c'est pas pour faire la publicité ay j'adore ak yeneen ak ñeneen ne leen au lieu ngeen di dem di ko jënd di indi mais ni ñu leen proposer ngeen defar seen machine seeni usine pour defaral seen bopp seen diwlin ak produit yi ngeen di soxla ba bu ëllëgee ñun duñu la ñu doon bu ñu doon importer mille litre diw diwlin dootu ñu importer mille cinq cent la ñuy importer wala quatre cent diwlin bi ñu dugal ko ci circuit bi mois wàññi la bay euh, suukar même chose CSS nu mu fiy jëriñ CSS da defar suukar am courant boppam am ay toolu boppam am lépp léppay boppam ñëw jaay ñu suukar boo xamee ni moom la mu koy dem di joxe jee bitim réew sax bitim réew lay gën a compétitif que ñun ñu koy jaay ñu bàyyi ko noonu parce que ndax lan am na tour ay ñaari tur ñett yu fa ne ñu ne la Mimran intouchable ñu ne la diw mi intouchable c'est c'est que gis nga réew mi pour nga defar ko ci lu jëm ci wàññu diw wàññi suukar wàññi dund gi ci boppam euh, président de la république mbébétam ak bëgg-bëggam la wax le premier ministre Ousmane Sonko hier a rappelé que bëgg nañ ko mais mënagul a nekk nii mhm. parce que moomuñu suñu bopp te yaa kon qu'on appelle l'application la vérité des prix man maa jóge bitim réew mhm. indi sama importation muy ceeb muy ñu naan la pakistanais beeg lu mu mën a mhm. doon man la ma koy indee wax dëgg fa neex yàlla nag prix ba mu ko jëlee doo ñëw naan ma da koy wàññi te subventionné ma FMI banque mondiale ne léegi sax yéen subvention yi ngeen di subventionné ci mbirum énergie faw ngeen teq ko wàññi ko ñu ne la ah ay la yéen bëggoon nañu wàññi ko courant bi de waaye mënuñu ko parce que mm-hmm. àgg nañu ci plafon ci wàllu subventionné mm-hmm. mënuñu ko gën a wàcc te bu boobaa njëgu courant bi fa mu tolloon lay toll donte amul yokkute parce que ak je pense que def nañ ci ab communiqué dem bu bu firnde lool mm-hmm. mais li wóor mooy Euh, réew bëgg-bëgg ngay am ak mbébét. Mhm. mais dafa am lu ñuy woowee la réalité la réalité nag mooy euh, moom moo lii. Mhm. loo moomul nag mënoo ci ne nañ ko wàññi wala nañ ko yokk. Mhm. parce que seen bopp aussi ci yeneen ci beneen mbir bi daay sànq yaa ngi koy wax mais.